Monsieur Abdoulaye Sylla di fondateur u club C50 préférence nationale wala club 50 pour cent préférence nationale du président bu mouvement ABS 2024 moo yëg jafe-jafe yi nga xam ni moom la waa Touba nekkee ci wàllu ndox mu yónnee leen ay citerne ndox ay camion ndox yu bare bare bare yoo xam ni population yu Touba ñoo ko doon laaj yéen quartier yi nga xam ni kat dañoo am ay jafe-jafe ndox dañu leen fay yónnee ay citerne depuis boobu

préférence nationale ñu naan ko C50PN moom moo yónnee camion ndox yooyu ndaxte kat gis jafe-jafe yi nga xam ni moom la yenn quartier yi ci Touba di dund monsieur Abdoulaye Sylla président mouvement ABS 2024